ginnaaw nu yow bi ñoo ngi siyaar ñëpp di ndokkeel itam ñëpp di baal ak ñëpp di baalu ak ñëpp ci weeru barkeel wu màgg wi di shahru ramadan al di am mbégte ak kontaante ci dellu siwaat ak yéen ci jataay bopp miin nañ ko ànd ak yéen bi weeru màgg wi tero ba léegi di jataay buñ jël jagleel ko leeral ay naafila yoo xam ne ñu ngi ko jukkee ci téereb Serigne bu Mbacké bii di Xuratul Ayn mbokk yi comme ni ñu ko baaxoo àndee ak yéen ci guddi yi weesu yépp tey dëppoo ak guddi juróom-benneel gi naafila gi ni mu demee ñaari rakka la ku ci julli ñaari rakka rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak qul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar rakaa bu ci nekk faatiya benn yoon ak xul huwallaahu ahad fukki yoon ak ñaar mel na ne ku julli ci maqaam ibrahim junni rakka mel na ne it ku julli ca jàkkee màkka junni rakka mel ni ku saraxe junniy dërëm léeg-léeg junni ñu xiif maanaam fekk junni ñoo xam ne xiif nañ nga jox leen ñu lekk ba suur ki def loolu itam mbokk yi bu ñaanee dees na ko nangu te mel na ni it ku jox ndogu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa yépp bu faatoo it ñu boole ko ci ñi nga xam ne dañoo dee ci jihaad maanaam dañoo faatoo ci jihaad des na ko musal it ci mettitu dee li mettitu dee di des na ko ci musal bàmmeel bi itam bu faatoo bàmmeel bi nga xam ne ca lañ koy denc des na ko fa defal mu bokk ci dëri àjjana yi maanaam bàmmeel bi day dañ koy boole ci dëri àjjana yi maanaam tooli àjjana yi wala jardin yi nga xam ne ñoom ñoo nekk àjjana bàmmeelam noonu lay mel te buy dekki itam moom mi def naaf gi dana ànd ak leer gu mel ni jant bi di xeeñ it gët ga gën a neex te dana tàbbi àjjana te dees ko xisaab te itam ti mbooloo mi nga xam ne ñooy mbooloom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay bokk bu ëllëgee kon guddi juróom-benneel gi la ñaari rakka la rakka bu ci nekk faatiha benn yoon ak qul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar benn yoon ak qul huwallahu fukki yoon ak ñaar ku def noonu ñu wax ci naafila gi mel na ne ku julli ca maqaama ibrahim maqaama ibrahim barab la bu mat julli julli fa junni rakka waaye itam mel na ne ku julli ci jàkkee màkk junni rakka jàkk ji nga xam ne moo féete woon màkka képp ku fa julli junni rakka lay yemoon ci yool dana mel ne itam ci yool ku saraxe junni dërëm léeg-léeg junni ñu xiif te bu ñaanee des na ko nangu mel ne it ku jox ndogu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp maanaam ñu woor ba ngoon nga jox leen ñu ndogu ñoom ñëpp te bu faatoo ñu boole ko ci ñi dee ci jihaat mooy ñu àndu nag yonent bi wala ñu ne ci leneen di xeex ngir yàlla ba seen bakkan des ca des na ko musal it ci metti de li muy tartar des na ko ci musal te bàmmeele limit des na ko defal mu bokk ci dëri àjjana yi ndax day mel ni jardin àjjana te buy dekki dana ànd ak leer gu mel ne jant bi di xeeñ gëtt ga gën a neex tàbbi àjjana te des ko xisaab te itam des na ko boole ci njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee xam ne ñëpp ci lañ bëgg bokk jullit bu nekk ci njabootu yonente sallam la bëgg a bokk kon mbokk yi lii mooy naaf ki nga xam ne indiloon nañ leen ko tey jukkee ko ci xortu na bu Serigne Chan bu Mbàkke di leen jox dig daje suba ak jàmm ci waxtu wi ci télévision Xasaayid TV wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala